ahsanul xaaliqin bu dee wilaaya moom Maodo laalu ci dara nga ñëw fii ci ndakaaru ak Sénégal ba Sénégal daj recenseel jàkka yi amoon naa kayit bi fàtte naa ko te bëgguma wax lu amul ay nangami milliers de jàkka la di euh, quatre-vingt-dix pour cent yépp Maodo ak njobootam a ko tabax maa ngi yoroon recensement bi dama xamatul fu mu nekk ci sama kayit ci 80 yi may wax ni 93 la woon laa yoroon recensement bi léegi bokkagul kon Seexul Xaaji Maalik mu des nag bii may mujje ci wilaaya lu jiitu Maodo di génn àddina ci lañ door a xam dëgg-dëgg nag kuy Maodo waaye foofu fekk boobu li dal saxaaba yi ci yonent bi moo dal gaa yi ci Maodo bi yonent bi di dem lañ door a xam kuy yonent bi Maodo it bi muy dem ci la mag ñi door a xam kuy Maodo ca la ba mu yebalee Serigne Babacar si ne ko dama bëgg nga dem yeesalal ma zawiya ba ca Ndar ndax ba ma koy tabax jom la woon rek waaye mën man newu fi woon ak kàttan tey nag wërsëg wi fi ne balaa ma cee def dara tabax ci zawiya ba mu ne sëñ Babacar ne ko su ma sañoon duma laal xaalis ndax ëllëg seetal koo ma booleel nga jox ko xaalis bi su ma demee ñu ànd defar mu ne ko koo tànn mu ne ko man duma tànn kenn koo tànn yow rek baax na mu ne ko kon teema laa booleeg alaaji Cerno Saidu Nuuru mu ne ko waaw kañ kookoo ma gënal sëñ Babacar tegal ko ci ne na Maodo génnee xaalis la war a tabax zawiya bi yépp Maodo génnee ko ba mu mat teg ko ci loxol alaaji Cerno Saydu Nuuru mu ànd ak sëñ Babacar dem nee na muy bésu altine nee ñu dem jàpp weer yi mu ma wax ñu def fa ay weer tabax ko nee na ba benn talaata Cheikhul Hadji Malick yónnee bi télégramme ne wax leen Babacar mu jege si mook Seydou ndax sama yaram dafa tàng maanaam dafa wéradi wéradi dem la rek waaye du wéradi feebar li indi bëtam yooyu nee na am na benn tubaab bu ma sa ñëw ne ko may ma cinq minutes ma faj la mu ne Maodo ne ko mënoo maa faj de mu ne ko lu tax mu ne ko lii du feebar la dalul Yaaqub moo ma dal wab na dat ay naahu du la wax wab yadat ay naahu du loolu la ca yàqub yoon ci yàlla yàqub ak doom ya ba yuusufa demee wab yadat ay naahu est loolu silmaxa la yàlla wax dafa ama ama yàlla xamul ama te indi na ko ci alxuraan man kaana fi hadihi dunya ama wa fil axirati ama wa adallu sabila kon yàlla xam na luy ama te indi na ko ci alquran ndax ba muy wax loolu yaqub waxoon na ama wabyadat aynaahu la wax lay ñuul a weex waaye mu ngi gis moo tax ba mu ñëwee sànni ko mbubb mi fa basarat mu xool ndax dégg nga wax ni Maodo ne ko lii du feebar mënoo maa faj cër la ca yàlla waaye mënoo maa faj nañ ko bàyyi nii rek baax na mu ne te ñàkk gis gi yépp kat nit ñi naan Maodo du gis mu ne téere bu mu indilu daf naan ubbil xët sàngam nga ubbi mu ne ubbil paas sàngam nga ubbi paas mu ne liiñ sàngam bi muy taalif xilaas nee noonu la ko taalifee di indil ma téere sàngam nga indi mu ne xët sàngam paas sàngam liiñ sàngam nee na léeg ñu xool xool duñ gis mu ne jox leen ma bi ñu jox ko mu ne yàgg yàgg yàgg ubbi ni fii la te ñu ne gisul nuurul mu tal sëb hmm? waaw kañ mu ne Seydul Xaj Malik jox leen xaalis bi ñu dem nee na bi muy mat bésu talaata ba Cerno Seydu Nuuru indi caabi yu jox ko Sëriñ Babacar Si la télégramme bi yegg si mu ne fekk sax benn naar du gànnaar waaye xam naa libane yii la nee na mooy jógee Tiwaawoon ñëw ne Sëriñ Babacar su ma doon yow de dinaa jege ji ndax góor ga yaram wi su tàcc na mu ne fi naar bi demee rek la télégramme bi yegg si ñu jox ko Sëriñ Babacar mu liir ko ne alaaji Cerno Seydu Nuuru kon dem jot na nee na ci bés boobu lañ dugg saxaar ñëw mu ne biñ ñëwee ñu ngi fekk sëñ Seydul Xaaji Malik ci néegam mu ngi tëdd mu ne ko pàppa lu xew mu ne ko si daara yaram weesu taate rek waaye dara dalu mu ne ko waaye danga jeex dara dalu la te danga jeex mu ne ko si xanaa bëggoon rek ni ma fi ñëwee ma delloo ko be sax yi duñu am luñ ñiinalee seen bàmmeel waxin la ay xam nga ne Maodo sax du ko laal mu ne keroog alaaji Abdou Aziz la ne nattal ma fii pëdëg lii mooy pëdëg mu ne sëñ lii mooy pëdëg ci wolof mu ne sëñ Abdou natt fii ñaari mbaaraam yi daje mu ne ko alhamdulillahi rabbil alamin ni ma fi ñëwee woon lay delloo dara yokkuwu ci mu ne keroog la ko wax ni si luy ñuul ci àddina bi ci téere luy ñuul ci xam-xam nit di ko xam yàlla xamal na ma ko waaye mosuma ci bàkku mu ne ko maa ngi leen di dënk rekk sama ginnaaw na mag topp rakk na rakk topp mag ngeen toppante ba ëllëg nee na fan yooyu muy waxtaan ak ñoom ana abdu ana abib ana muqaddam yépp mu laajte mu ne la ko jiitu sax fekk sëñ Babacar Si mag ñee ko njëkk a tawat ne ko Maodo daal jamono yi yaram wi dafa tàng daal buy wax sax day feeñ maanaam dañuy wane ne dafa xaw a naqari deret mu ne mu wax ko sëñ Babacar mu ne waaye keroog rëcc mu wax ko sëñ Hadj Malick mu ne waaye keroog rëccu naa ko mu ne Maodo ne ma Babacar dañoo tas sama yaakaar mag dama leen defar ba yaakaaroon ne bu ma fi jógee daa ñu fi bàyyi waa àddina di wax ak waa barzaq ndekete mënuñ ko mu ne waa àddina ñoo lay fen waaye waa barzaq duñ la fen ma bëggoon bu ma fi jógee ñuy wax ak waa barzaq te bàyyi waa àddina bii waaye ma yëg ne maa ngi bëgg a dem te mënuñ ko ma bëgg ñu mën ko balaa maa dem lii rek la waaye du dara mu ne waaye balaa ñetti fan balaa Maodo di dem fekk na mag ñépp mën ko di wax ak waa barzaq bàyyi waa àddina la tax nag Maodo tànn Tiwaawoon mu bokk ci pays yàlla yi ak fa mu tëdd tey xam nga loo gis dafa am bunt dama koy layal balaa ñuy foog ni wax ju neex moo tax may wax déedéet subhaanalladi asri bi abdihi leylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi baarakna xawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiun basir lu tax est-ce yàlla dafa tële yonent bi salaay sallam jóge màkka rek dem yàlla tële na yàlla tële wu yàlla dafa tële yonent bi jógee fu ko neex rek dem yàlla tëlewu ko lu ci indi baytil maqdis waaw kay ba déedéet du escale baytil maqdis fa la buntu asamaan ubbi ko te yàlla ne waatul buyuuta bi abwaabiha asamaan yi juróom-ñaar bii ñu tiim ñun asamaanu benn bi pour nga jëm ci yeneen yi mu ngi ubbi ko baytil maqdis buntu asamaan bu bu bu bu ubbi ko kaa eh, nuñ koy wax gis nga jàkka ja xam nga yoon ci yàlla suleymaana ko tabax ak yoon ci yàlla suleymaana ko tabax ak jinne yi waaw kay ñoo ko tabax moo ko tabax ci ndigalu borom la fa asamaan ubbikoo tax xuba bi moo buntu asamaan ñoo tolloo moo tax yonent bi déparé foofu pour jëm asamaan ndax yàlla ne waatul buyuta min abwaabiha kon faw yonent bi jaar baytil maqdis nga jël beneen laaya nag bi yàlla di wax ni qad nara taqalluba wajhaka fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fa walli wajhaka chatra almasjid alxarami wa xaysu ma kuntum fa wallu wujuhakum chatra boobu dafa am illa bële ci wàllu yéeg la baytil maqdis bii ci wàllu jaamu yàlla la lettre bu ñu koy awantee mën naa réer ci diggante bi waaw ah, waaye lettre direct recommandé du réer baytil maqdis bu dee ci julli indirect la te fa lañ daan jul jublu xam nga lu tax baytil maamuur ci kaaba gi la tege yonent bi nee na bu doon wàcc moo kaaba gi ñooy tolloo day tege net ci kaaba gi te mu nga juróom-ñaari asamaan te mbooleem jaamu yàlla yépp fa lañ koy stocké ligne direct la léegi nag gannaaw baytil maamuur foofu moo kaaba gi ñoo am rapport te dossier yépp baytil maamuur lañ koy yóbbu yonent bi xam ne njobootam seen jëf dafa lompoñ xam nga ñun rek ñoo am julli fu la neex mais xeet yu njëkk yi amuñ ko ah ah xeet yu njëkk yi fañ ko santaane nga koy defee wala doo am julli boo jullee sa kër doo am julli ñun nag ju'ilat lil ardi masjidan sallallahu alayhi wasallam moo ne suuf yépp defal nañ ma ko muy jàkk mu xam ne xeetam dañu lompoñ te seen jëf dafa néew mu am cofeel ci ñoom moo tax yàlla ne ko xat naraa taqalluba taqalluba al qulubul mutaqallib waaye fii wajhika lay feeñ mu commencé di def nii mooy tax taqallubu wajhika fi samaa'i dara ñaawu ci dara yàquwu ci ñoom it dañ daan gisante di waxtaan di seet luy doxal diine ji te kenn ku ne doxal tariqam te yàqul dara ci seeni diggante fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin ba yàlla dogal mag ñépp rek koo fi tudd rek nii la joxeel ak Seydil Hadj Malick ba yàlla def bi sëñ Babacar si ñëwee ànd ak alaaji Cerno Saydu Nuur mu ne alaaji Abdu Seydi Haj Malik ne woo leen ñépp ñu ñëw ñu ci lañ jëli sëñ Abdu jëli alaaji Abib jëli alaaji Mansuur mu ne ñépp ñëw toog mu ne Seydi Haj Malik ne leen Abdu mu ne ko labbayka mu ne ko yow sóoratu yaasin bi bu mu ndànk mu ne sëñ Abdoo doon jàng sóoratu yaasin bi rek ñi ci des ñépp ku ci ne mu am lum la wax mu ne ba muccee ci sëñ Babacar mu ne ba mu yegsee ci sëñ Babacar mu ne dafa ne alaa Cerno Saïd Nuuru yéen ñépp baal leen ma ngeen may ma ma am lu ma wax ak Babacar mooy passation de service mu ne ñépp génn mu wax ak sëñ Babacar li muy wax ak moom ba noppi ne ko waatal ñépp mu ne ñépp ñëw mu ne Seydi Xaaji Maalik génnee loxo ndey jooram teg ci kaw lal bi lii may wax it Thierno Bachirou Mountaga daa nettali na ma ko nee na alaaji Thierno Saïdou Nourou baayam moo ko ko nettali te moo ko fekkee mu ne Seydi Hadji teg loxo ndey jooram ne ana Seydou Thierno Seydou kon fekkee na mu ne ko maa ngi mu ne mu ne ko maa ngi mu ne ko Babacar tegal sa loxo ndey mu ne sëñ Babacar jël loxo ndey teg ci kaw loxo ndey jooru Seydou El jëlal sa loxo ndeyjoor teg ci ak Cerno Seydou Nourou teg ci mu ne Alaaji Mansour teg ci mu ne Alaaji Mansour jël loxo ndey joram teg mu ne Alaaji Abdu tegal Alaaji Abdu jël loxo ndey joram teg mu ne Alaaji Abib tegal Alaaji Abib jël loxo ndey teg mu ne Seydul Xaaji Malik yëkkati loxo càmmoñam ba nag teg ci seen kaw loxo yi jaay ne nii rek nii rek nii rek ba àjjana nee na bésu talaata bésu al alxames àjjuma samedi dimanche altine mu ne mu woolowaat sëñ Babacar mu ñëw mu dënk ko yim koy dënk ne ko lenn rek a ma jaaxal ci yow danga téye sa njàmbur ba mu ëpp te nit ñi ku téye sa njàmbur mënta jëflanteeg moom mu ne ko ah bàyyi li ma lay gis dong nga tax ma téye sama njàmbur ci ñoom de waaye ker bu ma la gisatul dinaa la mat sëkk mu ne ko jëf si mu ne ko fii ma toogee nag mag ñépp dañ daje ne yaa leen ci doy mu ne ko mbaadu aada waaw sëñ Babacar mu ne sëñ Babacar ne ko mbaadu aada yaa fi mag rek ay taxatoo mu ne ko déedéet mag ñee ko désigné dalee ci yonant bi Cheikh Seydi Ahmad Tidiane bi sama jotaay bi mu ne ko def naa ci lettre sax wax ko Sukayri mu dëggalal ma ko xasida ba bokk na ca min baadi abi bakrin summa mansuur wa abdul azizi suma habibi ñim dóor summa yépp yàgguñ fi min baadi abi bakrin sëñ Babacar Si ñaata at la fi def 22 ba 57 summa ñetti fan waa Abdul Aziz yi 40 ans summa Habibi xilaafatul Haaruniya sëñ Habib xilaafatul Haaruniya la am di doon na nit ki fekk mu ngi dund moo daloon Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ak Aliou Haradim Barada loolu la ñuy wax xilaafatul Haaruniya fa la ko Maodo jëlee fii mu tëdd nag. moom Maodo ca Tiwaawoon mooy diwaanul law yi loolu ngeen bëggoon dégg ah, kay mooy diwaanul lawliyaa yi mboolem awliyaa u yépp fa la ñuy daje ndax dégg nga wax mooy diwaanul lawliyaa yi fa la Maodo tëdd tey moo tax imaam Lamine Diop gëntoon gis Cheikhul Hadj Abdou Aziz sol te ni général di monte naan yaa xaaliqal iqaa dem leen ngeen laaj ko foofu mooy diiwaanu lawliya boo bëggee xam diiwaan mooy xol ni màkkatal mukarram nekkee xolu àdduna xam nga màkka mooy xolu àdduna tey ci kaw suuf moo tax kaaba gi reposé fa inna awwala baytin wudi'a linnaas lalladhi bi bakkata xaqiqatul muhammadiya bi ko yàlla xoolee dafa ñaq kañ ñaq yooyu def juróom-ñaari toq toq yooyu benn rek moo ci wadd ci la yàlla defaree asamaan ak suuf moo def puurit puurit moomu ci la bind asamaan la ca des ci la bind suuf fam dajee woon nag ba yàlla di tas suuf si ba mu nekk juróom-ñaari suuf fu ci masalan fa ko yàlla jaloon mooy tey kaaba gi fi mu reposé wu tolloog ma maamuur malaaka yi njëkk ko tabax maam aadama yeesal ko ci yàlla noox yeesal ko yonent yàlla muhammad ñëw defaraat ko mais kaaba yee malaka yee ko njëkk a def foofu kaaba gi reposé wu tey di xoloo àdduna waa hakada seydul haaji malik fa mu tëdd tey ca tiwaawoon mooy diwaanul lawliyaay ma jox la ci benn firnde danga ne cheikhu na tijaani lu tax fa mu tëdd bokkul cheikhu na tijaani waliyun waaye laysa minal awliyaay xam nga lu tax huwa qutbul maktum wa barzaqul maktum taajil aarifiina bu ñuy lim ndey ma mbokk ci aha sëriñ Mor jóg dem leen ngeen laaj ko pour ngeen am preuve ci li may wax nettali woon naa ko fi ba mu demee Fès ziyaare ji Seexu na Tijaan yi am luñ ko jox ca raw ba mu naan damay tënk ndax nettali woon naa ko fi am góor goo xam ne dafa am waliyu bu mu doon xeexal waliyu bi dagg raw xanam mu dem sëriñ moor ñëw mu ne ko dama gënt gis borom rawdu bii mu ne ma yow na ngay delloo si waat sama rawaan bi te bañ ko daggee ak léegi fukki at la sëñ moor ne ko mënuma ko waaye am naa kilifa bu ko mën mu ne ko kat mu ne ko Seydi Aboubacar nee na ma def tawassul ci sëñ Babacar si ñaan yàlla pour rawxaanam bi del si mu ne ba ca ëllëg sa ci fajar naar bi ñëwaat fekk ko fi mu toog ne ko jële jëf rawxaan bi ñëwaat na bii mu ne ci la ko naar bi ne kaay ma wax la borom rawdu bii ma wax ni yow yaa mën a delloo si sama rawxaan bi moo ma wax ni rawxaanu tariqa bi benn guddi rek lay fanaan fii ci Fès mu ne ko waaye juróom benn guddi yi ci des yépp senegal lay fanaan ci Tiwaawan lay fanaan ci Seydul Xaj Malik sëñ Mor Diop dem leen ngeen laaj ko lu tax mu di fa fanaan fu dul sa kër di nga fa fanaan fu dul sa miiqa di fa fanaan la muy diiwaanul lawliyaa yi moo tax mu di fa fanaan ndax jibril fi mu ne am na fu muy fanaan aha li muy rëy rëy am na fu muy fanaan maa la ko lu tax rasulullah tëdd ca kaaba ca medinatul a bàyyi màkk fa mu tëdd tey mooy xolu àjjana moo tax nga dégg muy wax ne bayna na raw minbari rawdatun min bari raw riyaadil janna yonent bi bu dekki a jotee du bouger mètre linkop bi xam nga nu muy tëddee bu dekki amee moo tax Seydul Xaaji Malik wax li mu wax na ne bu yonent bi dekkee Seydina Abubakar dekk Seydina Omar dekk Seydina Ali dekk Seydina Osman dekk naa Ali dekk mu ne billaahi man Malick maa leen di juróomeel ñu ne ko lu tax mu ne ndax fu yonent bi mos a teggee maa teg xam nga lu tax boobu dama koy tënk rek kuréel bu ne dafa am ñu leen di jiite te étape bu ne dafa am kuñ fa soxla boo demee barzaq dafa am yonent yuñ ko diriger jox leen ko ñooy contrôler barzaq ku ne nag baraziq am na barzaq yu baree am waaye xutbul maktum nag huwa barzaxul baraziq moom mooy superviser barzaq yépp huwa barzaqul baraziq benn diggante fi nit di génnee àddina ak fi muy duggee àjjana 40 bureau moo fi dox bureau bu nekk day am liider moo tax nga dégg ne bu xiyaama amee ñépp tiit daw jubali ci yonent yàlla aadama lu tax defuñ ko yonent yépp ñi dañuy jubali ci maam oh, garab ga du yonent bee ñu daw ci maam ibrahima ne ko yaay abul anbiyaay mu ne mukk ba ma ba ma ne fa la maara alxamara baasixan qaala hada rabbi loolu lay lijjanti ñu daw ci yonent yàlla Moussa ne ko anta kalimullaahi yaa daan wax ak yàlla mu ne am naa lu ma doy xibti yu ba ma reyoon lay lijjanti ñu daw ci yonent yàlla Isaa mu ne déet man dañ ma doon wax yàlla laa loolu laay lijjanti seeti leen koo ko mën a lijjanti mbir lu tax daw daw yooyu yépp am waaw ah, kay fi dekki de amee nag fa ñuy taxaw mooy tudd xiyaama foofu mu jaddit bu ne ña nga jiite woon yaay ñëw taxaw yow ma naddu u kulla unaasin huwa al imaamu yowma nadoo kulla unaasin bi imaamihim foofu Seydi El Hadji Malick huwa imaamu moom la Cheikhu Tidiane di puus ak Cheikh El Hadji moo tax mu ne fuñ taxawee ma juróomeel bi bu Seydina Abubakar jógee Seydina Omar jóg euh, Aliou Haradim Barada jox ko pouvoir noonu lay délégué Seydul Hadji Malick jox ko pouvoir ndax ñaara am àddina ak àllaaxira àddina délégué na Cheikh Mohamed Al Ghali euh, euh, Aliou Haradim Barada fële Seydul Hadji Malick lay délégué ndax Maodo doo ko wax moo ne fuñ teggee ma teg te boo légee maa leen di juróomeel yow ma nadu kulla unaasin bi imaamihim mënul ñàkk noonu lañ koy toppante àllaaxira par hiérarchie la quarante bureau yi bureau bu ne dafa am ku ñu fay soxla fii ci àddina balaa yowmal xiyaam di taxaw moo tax ma waxoon leen ne Cheikh Al looloo tax muy dundu délégation de pouvoir bi ko na tiijaan yi jox mooy mu ànd ak Mahdi ndax Cheikhuna Tidiane yi moo waxoon ni kontaan leen maa leen di wax ngeen bég ndax mahdi yu bi ngeen dégg muy ñëw mu jug jamono su ñëwee ci sama taalibe yi lay bokk kii mooy Seydul Xaj Malik sëñ Babacar si nee na sëñ Abdou nee na sëñ si nee na bi Maodo defee loxo yi noonu ba noppi la ne Babacar mu ne ko la labbayka mu ne ko ah daan naa wax ne su ma yàlla nanguloon benn salaatul faati benn pere salaatul faati danaa gàddu bàkkaaru xeetu yonant bi yépp ëllëg lay ca kanamu yàlla ba rëcc ñu rëcc ñu ànd dugg àjjana mu ne ko ba ma koy wax de awma ci woon lu ma leer waaye tey fii ma tëdd yonent baa ngi nii na Tijaane ngi nii nee nañu mosuma rotal peru salaatul faati bu yàlla nanguwul te neex naa gëm Seydul Haaji Malik Sëñ Abdu nee na am na ñu ne njaar am na ñu ne eh, eh, ndaar la waaye tiwaawoon na xam nga lu tax man damay joxe preuve xam nga lu tax muy tiwaawoon soxna roqee njaay ñëwul tiwaawoon mosul ñëw Tiwaawan soxna Roqee Njaay mosul ñëw Tiwaawan sëñ Abdou Lamine moo ma ko dett nee na bi si Hadji Malick génne àddina sëñ kër Si dem na di ko jëli mu ne ko si sa bàyyee ma waxoon ma toog fii xaaru ko fii laay toog xaaru ko waaye Tiwaawan duma fa dem nee na ñuy nax di nax di nax bam ne ko xanaa Louga boobu te Louga sax ngay danga ma tabaxal jàkka ca kër ga fa may dëkk ëllëg nang ma fa tabaxal jàkka bu ñuy nodd ma di ko digg ndax bu ma duggee bàmmeel bu ñuy nodd ma di ko dégg ndax man sama dund yépp nodd ma ci gën a neex sëñ Abdou nee na lii la soxna Roqee Njaay wax sëriñ Babacar Si moo tax mu nangu mu jëlee ko Louga jëlee ko Ndar indi ko Louga waaye mosul ñëw Tiwaawan ndax da ko ne sa bàyyi moo mënoon naa toog fii xaar ko du ma fi jóg Tiwaawoon moom sama tànk du fa dëgg moo tax ma ne Tiwaawoon soxna Safiyatu Ñang moo fa nekkoon ak soxna Yaasin jën soxna Safiyatu Ñang la sëñ Abdu nee na Seydul Xaaji Malik bu julliwaan gee ca jàkka ja noppi recevoir gan yi seet ñi soxla mu fajal leen seen soxla yi nee na ba guddi ay 10 mu ñëw ne ko ana laax bi xam nga laaxu lan la laaxu ñam bi te daqaar ji xob yi lañuy ñuy du am suukar du am xorom sotti ko ci ñaxit bi nee na mu caf ci ñetti baaraamam ne ko jëf jaraw lakk ñan bu dee suba bu naanee sexewam ba noppi mu ne eh, laaxu ñam bi ñam bi lañ koy defaral mu def ci daqaar guddi sànqal suba bi def ci daqaar daqaar gi du bengal yi de déedéet xob yi lañuy ñuy def ci xam nga bengal bi sax neex na waaye xob yi mu ne foofu nag Seydul Xaaji Malik am na am na roq bu mu daan taxaw nee na maa ko daan cuuraayal soxna Safiya Sëñ Abdu nee na moo ko daan cuuraayal yére yi nee naa bés nag ma boyal ànd bi ba mu boy ma ñëw teg ko ci suufu yére yi def ci cuuraay rek mbub mi daanu ci ànd yi ci ànd bi nee na ma ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun si sa mbubb maa ngay lakk mu ne ko astaghfirullah safiyatu lu bokk ci Malik du lakk nee na ab diir mu ñëw yëkkati mbub mi doom sax takku ci waxuma la ak muy lakk ci ànd bu boy nee na foofu la Seydi El Hadj daan taxaw bu nee bu jógee danaa allahu akbar nee na ñaari rakk rakk bu jëkk bi xaaj kaw rakk bu mujj bi xaaj suuf mu sëlmal 4 heures du matin dana fekk mu pare ñaari rakk kaamil nee na ñaari rakk la daan naafila guddi gi bu xëyee dana waqafee kaamil bu muy xool balaa dem daara ja waqaf kaamil bu mu dut xool bu guddee mu naafilaa ko ñeenti kaamil par bés la ma Maodo daan wàcce bii da koy naafila bii mu jàng ko xool ko bii mu jàng ko te du ko xool mu ne bés nag mu toog la ba noppi toog mu ne maa ngi gis mu concentré wu ne na mu jékki-jékki loos wi ne say ba génn néeg bi gisatu ko moom sax na Safiyatu nee waaye taxul ma tiit na moo ko nettali sëñ Abdou sëñ Abdou da baax sëñ Abdou nettali ko mu ne mu jékki-jékki gis muy ñëwaat ba nekkaat Maodo mi mu xam nee na ma ne ko ah si tey de def nga yëfu tukkulóor mu ne ko wallaahi ñan dafa ma yëfu tukkulóor dafa mënta ñàkk rek àddina bii la nit di nekk di werante Maalik waaye billaahi ku dugg bàmmeel xam kuy Maalik oh. mu ne ko ñang àddina bii rek la nit di nekk di am sikk ak di werante kuy maalik waaye ku dugg bàmmeel di nga xam kuy maalik ne ne ko mu ne ko ñang maa ngi leen di dënk rek muñ leen ba ëllëg ku séddu ngeen séddu ku sédduwul ngeen séddu kii mooy Seydul Hajj Maalik kii mooy doomu Fawad Welek maam Ousmane kii la Cheikhuna Tidiane yi tànn kii la rasulullahi tànn kii moo sunni yu la ko sëriñ Aline wax moo teg tànkam ci sunna teg tànkam ci sharia mosul lor melentaan mosul lor nit mosul yàqal kenn kenn yàqoowul ci moom bind na bàyyi fi wax nañu dégg jëf nañu gis ñaari téeréem mi mu doon wax ne su ma ko taalifee bàyyee leen seen àddina leeral na jamono tey kifaayatu raaxibiin gis ngeen ko lépp luy tilim tilim tilim tilim ci diine ji Maodo bind na ko ci ne naa leen kenn ñemewu ko jàngale ci pénc kifaayatu raaxibiin ah ku ko jàngale ci pénc bu ñu la dóoree yet yaa ko def ndax lépp luy sikku Sénégal ak luy senegal Sénégal Maodo bind na ko ci téere boobu ñuy woote woote caaxaan yeeg yi teguwul ci dën dëgg ak yépp Maodo bind na ko ci téere boobu kifaayatu raaxibiina nga dem ci ifhaamul munkir aljaani lépp lu tarixa bi soxla Maodo bind na ko ci kon moom wàccoon na ak ñëpp waxuma laal nag xilaasu zahab moom loo bëgg a xam ci yonent bi rek demal ak yeneeni téere waaye ñett yi rek doyoon na preuve ci koy Seydul Xaaj Maalik ndax yonent bi huwa rahmatan lil aalamina boo xoolee xilaas rek xam nga ne matal na sëkk lu ñuy wax ci yonent bi amul leneen lu lenn lu Maodo bàyyi ci yonent bi amul nga ñëw ci kifa kifaayatu raaxibiina ñagee na ko diine ji lu la jaaxal ci diine lislaam ak lu la ci war a indil sikk rek leeral na ko ñi fiy nekk di woote caaxaan yépp leeral na ko nga dem ci euh, ifaamul munkir aljaani lépp lu tarixa bi soxla ak yépp yuy caaxaan te bokkul ci tarixa bi Maodo génne na ko leeral ko kon Maodo wàccoon ak ñépp kii mooy Seydul Xaaji Malik ku sunni yu la te bu ñu la nee sunni yu nga rek dee nga mooy kenn sañatu gis ci mbóosóor liy daggan ci yow sax day xaram ci yaw daan na wax ne ah nelaw de dagan na waaye Malik du ko def du ko fa xaar de jaam la may jaam damay bàyyi rek bu ñëwee not ma ma def ca lim tollool bàyyi ko mu dem ma nekk ci li ma nekk moo tax mu daan wax ne diggante gannaaw gee ba fajar ku ma fi fëgg ma ubbil la te du ma yeesal njàpp daan na wax ne gannaaw gee ba ku ma fëgg ma ubbil la du ma yeesal njàpp kooku nelawut di xanaa Alaaji Mansour rek doomam daawul nelaw cinq minutes la daan nelaw si Alaaji Mansour cinq minutes moo tax bi mu tawatee mu ne ñu ne médecin bi ñëw ne ko dañ la bëgg nga nelaw 15 minutes ñu fay ma eh doomu man mënu maa nelaw nag lu dul 5 minutes eh man 5 minutes rek laa mën nelaw 5 minutes la daan nelaw kii mooy Seydul Hajj Maalik waxuma sax doomam yi muqaddamam yi rek ñoo jommalaat dina ci sàmm ci ngor ci jaamu yàlla ci wéetal yàlla. ci maandu muqaddamam yi rek koo ci jël rek doy na référence nga ñëw ci doomam yi kenn koo ci jël doy na référence waxuma la ak Seydul la Malik fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin yal na ñu yàlla taas ci barkeem yal na ñu yàlla taas ci barkeem ñu ngi jéggalu guddal gi nag waaye dafa mëntoon a ñàkk yal na ñu yàlla taas ci barkeem te yàlla xam na ne li ñu asaf mooy li ñu waxul moo ëpp li ñu wax ndax bañ a déranger kenn bañ a bañ a vexer kenn bañ a vexé kenn bañ a déranger kenn bañ a wax luy lijjal kenn te yemit ci nital Maodo def ko muy nit te ban bañ koo jéggil nit ndax rasulullahi nit la di ah laqad jaakum rasulun min anfusikum ah jeex na yonent bi nit la ko jógee ci nit ñi waaye lay sëkkal bashar waaw bokkul ak nit ñi nag bu ñëpp yemoon am ñu gédd seen cër am ñu gedd seen cër Seydi Hadji Malick nit la waaye bokkul ak nit ñi moo tax ñu jéema a wax loo xam ne nopp dana ko mën a dégg dina tege ci xam-xam te kenn du ko ëppale nit fa tabaarakallaahu ku xool ay jeexitam di nga xam ne Maodo naxut kenn ku xool ay jeexitam di nga xam ne Seydi in uridu abdu man de mën tab ah jigéen ah lii Ousmane wala ñi ànd bi ñeenti ànd la wala